Euh, commission d'enquête parlementaire boo xam ni tey dinaa xool yéen lan moo tax yéen ngeen dugal am d'amnistie da dangeen di baale mais ñun duñ ay dof sénégalais gis nga ay ay nit njaay lanu bàyyi leen seen yi ngeen di def am na loo xam ni c'est pas sérieux c'est pas honnête mënuñoo rey ay nit ba pare ñu xëy tey jii ni nangam man bi may ñëw laa jot yóbbante le président du parti Serigne Moustapha si na leer mu ni loi bii bu ko kenn voté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 asalaamaaleykum merci président maa ngi nuyu sama